dëgg naa la kii di waaj a wax it Boubacar ndaanaan la. waaw hmm. kii kay kii kay su ko senegal yi jàppee tey du baax. may ma ci. kii waxam ji. am solo gu mu am solo tax na gars yi sax ñu ngi koy passante ci réseau sociaux yi. waaw tey la ko Sénégal gi yëpp di dégg. gars yi ndànk rek. Ah, mais man a nekk mais man mais ñun ñun dafa wax ak ñun nag. ah parce que ci tabaski gi lay wax. nee na Sénégal su tabaski jotee nañ moytu zero zero deux cent vingt et ñoom moodu moodu yi sonn nañ sonn goo xam ne suñu gisee zéro zéro deux cent vingt et dañuy tiit mhm. muy maaraa mhm. di politicien ba mhm. di commerçant ba di di ku mënti doon zéro zéro deux cent vingt et un maanaam fi ñu teg tabaski ak mën a ñaan gu ñu mën a ñaan <laughs> déglu waa ji nañ ko déglu te ñëw pàcc boo fa demee ci ëxlu naar yi Maroc Espagne ci jullit ña Tunisie Algérie ba France jullit dafa nekk mais ñun Sénégal fi ñu yóbbu dimension tabaski mbel mbel mbel fu ne ñu wuti fa ay xar xar dana manqué xar du am koo gis mu ne teluma dara fi ñu yóbbu dimension tabaski ñoo ngi mbugal suñu bopp te deewunu tabaski du farata ak makka mooy farata tabaski ñetti fan la boo ko mënul wàcc na la waaye dóor ay mar te yow xar mi bu dee doo ci lekkub kilo te xar mi deret ji su wadde deret social la yàlla soxla te amul benn commission buy wër di xool xar yu rëy xar yu tuuti ah, yow diw yeew na xar mu rëy dama koy yeew mais na nga xam diw lu muy am salaire hmm? doo toppandoo mukk ka mën a fanaan ca jàkka ja di jaamu yàlla doo toppandoo mukk jigéen ji soxna jaaratullah doo toppandoo mukk soxna Aminata doo toppandoo mukk soxna Fatou sa Diop doo toppandoo mukk maam soxna Lo Diop qualité yu baax yi ñu am doo leen toppatoo taxaw di ko ranganteeg sa sa borom kër heure bi sa borom kër daf lay ragalawoo am na ci góor ñoo xamante bi ni ñimeetuñoo woote def la ñu wax rek la ma bëgg def ko seenoo woote gi moom tontu yu gàtt soo ko na ala waxal maa ngi lay dégg bi nag te ñilaa bi nag teer ba nga xam ne yokk na fay gi nee ma fay ko quarante mille fitna fitna fitna fitna fitna fitna fitna ba dugg bàmmeel ku ci as gor dangaa war a wax sa borom kër bu nekk àll nga ne ko wàññil wàññil wàññil wàññil ubbite école gaa ngi dikk wàññil wàññil wàññil wàññil lu kees yi lu néew yi bari bari bari doo dégg benn discours lu tax yow bu fekkete as gor nga noppi sa borom kër bu la nee naka tabaski gi neel loo def baax na wax ko loolu ren ñaaw na jigéen di xuloog jëkkëram wala jigéen di xuloog faram ba ko bëgg a takk ci tabaski gi def leen promotion ku ci soxloon cinquante laajal dimbale mbir mi ci xale yi sóoraale na ëllëg bàyyi yëg nga ne am na ko xam yaa ngi koy fitnaal ci tabaski gi te déwén du ko fi fekk sa yaram du daw sa yaram du daw bu tabaski jub see Sénégal yi seen ngëm gi day mel ne day naaw boo ma ko defalut ma tas boo ma ko defalut ma ñibbi nga gis jigéen joo xam dafa lëkkaloog yaayam di dóor martu jëkkëram rek moodu moodu naxa naxa yi nga xamante ni moom gëmuñu lu dul jigéen moo tax léeg-léeg nga gis ci jigéen jekku façon góor jekk goo xam danga ne ko bàyyil na dee dóoral martu ndax mimi yambarum góor ba ko ndeyam di boot mu wàcc fa ndeyam wàcc fa léppam di jaamu jigéen ji ak ah, yow kay loo bëgg rek bëgg naa ko loo wax rek loolu laay def yaay sama yaay sama yaay sama am leen xel ubbi leen seen i bët ci tabaski gii def leen attention ci tabaski gi wàññi leen yàq gi ci tabaski gi wàññi leen yàq gi ci tabaski gi sakkanal leen poos yu moodu moodu yi ci tabaski gi moodu moodu boo ci xam ne samba alaar la nag lekkal ku ci nekk samba alaar lekkal lu mu la jox lew na koo xam ti bopp bi kupp moo ci nekk xàmmeewut farata ak sunna amul soxla ci ndeyam amul soxla ci baayam amul soxla ci dara kër sëriñam fuu rayal lekkal lew na yow mi may dégg tey ñaanal yàlla fekke ko wóoru la ndax da nga ko fekke nga yëkkati fitna ba sa borom kër du ñemee woote mbooleen lu ngeen daan waxtaane ci jàmm ak salaam dàq nga ko dàq nga ko defal li ma wax wala mere la defal li nga wala ma sànni téléphone bu fële boo dee woote duma la jël defal li ma wax sénégalais te yow li ñu utiliser lépp ci tabaski gi jógewut ci réew mi gañe laa jógewut ci réew mi cheveux naturels jógewut ci réew mi diw yi ñuy a jógewut ci réew mi xeesal bi jógewut ci réew mi daal réew mi duñ ko sol di yokk alal waa bitim réew di nërëm mi kanet yi ñuy naan jógewut ci réew mi pomme de bi jógewut ci réew mi soble si jógewut ci réew mi li mooy lan téléphone yu cher yi naan jëndal ma ko ci tabaski gi jógewut ci réew mi metti nañ metti nañ metti nañ metti nañ metti nañ metti nañ sarax leen ma ci émigré yërëm leen a yërëm leen tukkikat yi may leen tukkikat yi ñu noyyi ren ji tukkikat yi dee nañ toqe nañ tayyi nañ seeni fit nekkatu fi amul benn tukkikat boo xam ne tëdd dana jot nga tëdd ci jàmm ak salaam ndax xamoo ba xam danga nga dellusiwaat ci sa lal bi tëdd wala di ndax rey gu metti gi nekk euro dee gaa ngi takkarnaas yow boo taxawee aéroport sa yaram day daw ay kees rek ngay seen ñu koy jage di teg ci oto yi am ñoo xam dañuy jaar ca digg ba dimbali ma ci xarum tabaski loo ma mën a defal xarum tabaski tax ma soxla la pourtant tabaski gi a nga tax mu woo la bu tabaski gi jàll mu lay fàtte boo ko yónnee tabaski duutu la yëg billaay wala sim du jóg sax waaxu dugg sa kër nemmi ko xool say soxna nu ñu def mu ñaanal leen mais bi tabaski jotee dana lu xarti sa numéro ba fi nekk nii ku lay woo boo gisee da ngay tiit am na ñoo xam fi ne bëgguñoo gis 00 221 00 221 laajkat yi ñi dàqal laaj ci àddina 00 221 numéro bu soof duñ la woo mukk ne la yóbbul naa la xarum tabaski 00 221 du la woo mukk ne la li nga ma yóbboon yónnee woon des na ba maa ngi ne dencal la ko ca compte ba 00 221 du la woo mukk ne la tabaski gi xottil naa la ndax daaw yaa ma fegaloon gàcce ga 00221 00221 benn espèce numéro la boo xamante ni ëhlu laaj rek lañ laaj rek la ñu mën laaj rek laaj rek jox ma jox ma jox ma ma bu action jubee daal màggal gàmmu tabaski koor korite tam xari rakki gàmmu rakkat yi gàmmu ndeyu koor maamu koor fukki weer ak ñaar ñagg-ñagg yi ci dikk diggante bi 00221 laaj rek su bëfun bi numéro waay a bi koo seen mu yorub téléphone ma ngay seet nan la cay ngàdde ngàdd suba ngàdd ngoon bu tabaski jàllee école bi taxaw dimbali ma ci sama doom ji danañ ko dàq de dimbali ma ci inscription 00221 politicien bu la wooyee daa bëgg a falu 00221 kilifa diine bu dee ñëw daa bëgg a addee 00221 sama mbayaar 00221 metti na est xam ngeen mën ngeen bañ a ñëw xalaas ba après tabaski. <laughs> non mais waa mooy Samba Mayane. gis nga kii nii. dafa war a sant yàlla. ba mboom bokkee ci ñi ñuy laaj. Hmm? ba yàlla boolewu ko ci ñi laaj. ba mu yeewoo démb. Hmm. dafa fekk ñu rendil ko ñetti xar. bàyyil ko ci ëtt bi. te nee na moom gisul deret. parce que tonni ñu deret koo tonni ba noppi raxas ñoom xar yi. fees jël deret ja yu feesuñu ko noonu lañ ko bàyyi. loolu c'est grave. très grave. ñooñu ay sàcc lañu wala dafa am lu ñuy liggéey. ah non non ah, loolu sàcc gi dañuy yóbbu dañuy yóbbu ndawal. loolu bu xaaba la. non xeetu bu xaaba la. Ah, ay xaram lañ rend ay xaram ci boppam la ñu rend te ñetti xar yëpp xar yi benn melo lañu. ñetti xar yu weex. waaw yu weex. kooku xaram yi waroon nañoo rafet. waa est-ce que rendi ko am ku leen bett ñu daw. dañ koo rendi raxas ko ba noppi rangaleel ko ko noonu dem. ah bon nee na moom gisul fenn fu fu fu xam nga euh, xar boo ko lewetalee. Mhm. da ngay gis deret ji. nee na gisul fenn fu deret nekk. nee ko Ndoye Bane nee na. Hmm. wax ko dina la dégg. mu gëm yàlla. Fadji li Fall déglul. fees xar mi. Mhm. jënd jëwlin jador. uti pombiteer ak soble. ak la cay dem. Eh. ah. Eh. Euh, de de commencé tabaski avant tabaski. <laughs> na ko ñeme. ah na ñeme bagage yi. su rend nañ ko rend normal. na ko fees añ ci reer ci lakkulu ci. saraxe ci. waaw saraxe ci. gis nga Nabil Chikeur la fa nekk la fa dem ci ay nit ñu ñu agressé blessé leen. ci jul diggante julli gi. bi ne suba la julli génn bi ne ginnaaw suba la julli kenn xamul nu mu toll. ah bon léegi nag de série d' agression yeeg ak sàcc yi. moom laa la indil géejawaay ak yaraax ak lii nii moom la ci avant tabaski bi. acca nañ ko déglu déglu ñii. man dañ ma agressé sur la veille de la tabaski bañ ne suba la tabaski lañ ma agressé vers une matin côté Kappa bon dama doon waaju julli ji nag euh, dem naa euh, jënd sama yére doom jënd sama yére julli et tout ça dugal ko si sama oto pour dem julli ji ma ñëw ba Kappa am ko ma arrêté ni ma day dem pour ma pour ma jël ko si yoon bi jabaram léegi par la suite ñu waxaale mu doon dem otel gaynde mu ni ma naa ko may si yoon bu jël jabaram ma ñëw ba si yoon bi côté Afrique Parabrise ma taxaw lu ma cinq personnes wër ma ku nekk yor jaas yi dóor ma ay jaas yi dóor ma jaas si bopp dóor ma jaas si faar ba mënuma sax nooyi après blessé ma gravement dóor ma jaas si bopp door ma jaar si si si si faar yàq sama yaram bi yëpp ba mënuma sax dox maa ngi maa ngi ñaan dimbal sama oto bi pour ngeen jàppale ma si benn taxi la Logan Dacia Dacia Logan Dacia numéro oto bi 54 01 AG 54 01 AG bon peinture bi nag dafa xaw furi oto bi peinture bi jaune la jaune unique mais peinture bi dafa xaw furi maa ngi ñaan maa ngi ñaan sàkku ndimbal si ku ko gis na ma si dimbale ngir yàlla numéro oto bi 54 bon oto bi nag parabrise bi si kanam à dafa xaw a toj dafa toj bon et puis euh, peinture bi dafa xaw a furi peinture peinture jaune clair la maa ngi ñaan ngeen dimbale ma ngir yàlla ngeen ngeen ngeen jàppale ma si parce que oto jàmbur la yoonu ci talib bees bi ci firawoo yi jàpp gàddaay sëfëru kalandoo yi daal lañ xaw a parce que ñoom dañ buñ tawee ba boor yooyu daal dañuy paan paandu après booy génn ci filawoo yi ñëw agressé la man mii di wax yow agressé nañ ba sam te nit ñi ñu ngi koy jàmbat chaque jour chaque jour. fii daal bëgg nañu police ñëw jëm ñu ko raxasal. sonn nañ torop daan nañ muñ insécurité bi ñuy agressé ak noonu mais même pas quatre jours ñetti crime baar yi dañu fi bari booy yëpp dañuy naan sàng ay naankatu sàngara guinze yooyee fi ne jënd fi yàmbaa nag moo gën a yomb sax jënd fi cigarette parce que yàmbaa dañ la koy livrer à domicile fi nga toog ngay toog nga woote ñu indi la bon bi xam nga fii daal sonn nañ sonn nañ sonn nañ de ñun góor yàlla yi nii sax dañuy ragal a génn yenn heure yi wala nga bëgg waa wala nga wàcc ci kaw tali bi woo sa benn copain mu ñëw pour mën la gunge xam nga métti na trop diggante banlieue bi daal fii nii diggante sëñ Assane Gàddaay mbaaru sëñ Saliou diggante boobu dañ fa amul woon sécurité naka jekk mais si fanu tabaski bi nii rek rey nañ ci presque ñetti nit kenn ki buñ ko rayee sax dañ ko dugal ci saaku ngooñ léegi nag am na sunu benn am di jàmm boo xam ne ko xam nañ ko bu baax défendre ruñ ko mais day jënd ay téléphone gaa receleur la mais dafa jënd téléphone bi mais moom lañ ci jàpp daal waaw diggante loolu daal bëgg na nga dimbali ba ci filawoo yi fan yi nii agressé nañ fa man mii di wax ak yow sama papa safaru kalandoo yi xaw ma ñooy complice ak gars yi ñu daal fii daal amul benn sécurité fii banlieue bi géejawaay tournal sañu asin ga marché bees gàddaay doo am sax fitu dem fenn waaw dimbaliñ ci rek nga wax ak waa police bi ñun nag yaay sunu yaay sunu avocat yaay sunu député buñ jaaxle daal yow la ñuy waxal en fait man taximan laa quoi damay damay def taxi quoi mais jeudi jeudi ci guddi dama yeboon ñaari gel quoi doo leen indi zone de captage mais biir Grand Yoff laa ko jaare quoi ma ñëw ba CTO mooy fi ngay jàddee noonu pour di dem ci kii bi ci bassin bu mag bi fi ngay jàddee sa droite pour dem ci bassin bi ma ñëw taseeg am benn gaañ guy jéggi quoi ndekete moom moo ko def exprès ma teggi sama tànk avancé tuuti ndekete moom ibbi na bunt bi quoi léegi bi mu ubbee porte bi man dama jékki-jékki rek dégg yuuxoo yi quoi ñaari jigéen ñi nekkoon si ginnaaw di yuux biñ yuuxoo gaañ bi langaamu ci oto bi quoi ci porte bi la langaamu mel ni ku jouer film man nag dama dawal oto bi ba ni ma maa ngi maa ngi dagu vitesse bu bëri ma zigzag oto bi quoi après si la daanoo noonu man ma traversé dem quoi waaw pour nga wax gars yi ne leen ñu moytu côté boobu ko ginnaaw ginnaaw kii bi ginnaaw CTO groupe la ñuy def dañ da dañ lay bàyyi ba ngay romb ñu ñëw mel ni kuy jéggi bu ko defee yow boo tegee sa tànk rek dañuy ibbi oto bi quoi pour nga wax ko gars yi ñu bàyyi ci xel. mi ngi noonu. série d'agression. waaw. bari na sax vey veyu tabaski. veyu tabaski bi. Hmm. ñu am na ay blessé ñu ci bari fa lañ doxee ñu bari ñàkk na seen bagage ñi ay taxi la ñuy sàcc dem agressé ci. ñëwaat wala ñu sàcc ci ñëwaat. ñu koy sàcc oto dem agressé ci ñëwaat c'est lool loolu loolu loolu dafa bari lool.